la police et la gendarmerie ak les services Sénélec Sonatel santé et hygiène ak mboolem presse bi fi ñëw yëpp ñu ngi nuyu mbokk yëpp ñëw fii monsieur le gouverneur gannaaw bi ñu ko yëgalee président de la république son son premier l'ensemble de gouvernement monsieur le gouverneur ñu ngi lay remercier ci réception yi nga defal comité d' di du centenaire Magal Daaru Xudoos fii ci gouvernance ñu ñëw fi ci ndigalu Sëriñ Muntaxa Mbàkke al xalifatul am ak ci tur ndigalu Sëriñ Ahmadul Maxtaar Mbàkke xalifa daar Xudoos monsieur le gouverneur Magal Daaru Xudoos yàgg nañ kaa def waaye tey dafa am beneen cachet boo xam ni dafa am importance mooy dafa dajeek centenaire téeméeraat du caaxaan te màggal gi tey du sëriñ Mountakha ki mi nga xam ne mooy xalif général de moo jël engagement que màggal gi nii lañ ko war a feete ren ndax sëriñ Touba cent temps ba mu jógee ba ñu ko jógee Dakar indi ko fii tam ñaanoon doomam ji waxoon Cheikh Moustapha ne bis bi ko gënal ci àdduna mooy bis bi muy daje ak boroomam te bis boobee moo am santa loolu tax ñu bëgg koo marqué cent yi sëñ Mouhamad mu mm, Mbacké mi xalifa bi jël ci engagement bu rëy dañ koo war a organiser noo xam ne ni Sénégal gépp ak àdduna bépp dañ ko dañ ko loolu moo tax mu jël 100 millions départ jël 100 millions teg ci table ne lépp lu war ci màggal da ngeen ko ci def kon kooku bëgg na màggal gi ñëw vulgariser ko xamal ko ñëpp porte ko à la connaissance de tout le monde. sëñ Amadou Makhtar moom it engagé wu ci comité bi yëpp ku bokk Serigne Touba rek dem nañ ci yow ñoom ñëpp ñu engagement ku ne am ci gis-gis am ci engagement pour la réussite du Magal. kon monsieur le gouverneur par votre gouvernance li ñu fi wax yépp dañoo bëgg mu amaat beneen diligence ndax lu ne bis bu ne ak bis bisa màggal yi fi daa jaar yépp màggal yu rëy lañ yu baax lañ ndax waaye tey dafa am beneen beneen cachet kon loolu lañ bëgg mu mu mu am beneen taxawaay daal au niveau de toutes les tous les euh, euh, services tous les services de l'État ñu taxawa ci dama euh, ñu bëgg itam màggal gi ñu koy lancé murit yi nekk ci àdduna bi yëpp biir réew mi ak bitim réew ak jullit yëpp ki nga xam daa liggéeyal borom ba mu sant ko gërëm ko may ko li mu koy may ca bi bi ca ba mu ko maye dafa wax ne ijal rujuu'i ila xawmi saadatina kon sëñ Tuubaa bi mu amee bi mu amee bi mu amee ndam daf ne fait de mon retour, fait de pour mon peuple. Son peuple, c'est le Sénégal. La, la félicité d'ici-bas et dans l'au-delà. maye sama sama réew samay xeet sama mbokk sama liggéey bi ma def ba war a ñibbisiwaat mu nekk njariñu sama waab réew ñu am texe fii ci àdduna am texe ci àllaaxira kon kooku bu ko yàlla defee mu ñaanoon bisam boobu mi ñëw dajeeg borom muy dem ba am téeméeraat ku def sénégalais wala ngëb julli rek war nga ci am beneen taxawaay boo xam ni parce que Sëriñ Tuubaa c'est pas c'est c'est universaliste du du appartenance mouridisme wala ñu mel noonu Sëriñ Tuubaa ñëpp a ko moom ndax lislaam la fi nekkal l'islam loolu liggéey ak liggéey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa kon loolu monsieur le gouverneur mooy mooy mooy mooy bis bi ñu ñaan daayira yëpp nag muy daayire Serigne Touba yëpp ak daayire Cheikh Moustapha yëpp daayire Serigne Bara yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew ñu ngi leen ñaan ñu lëkkaloo xam ne sëñ Mountakha moo joxe ndigal ci bis bi ñu màggal ko ak sëñ Ahmadul Maxtaar ñoom ñëpp daayire bu ne fa nga nekk ñu ak dëkk bu mën a doon muy États-Unis France Italie Espagne tout partout dans le monde fu fi daayire bi Serigne Touba nekk na lëkkaloo ak daayire waa waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha waa kër Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ñu def benn bloc màggal ko organiser ko noo xam ne ni daaw ñu ko organiser loolu mooy cachet bi ñi nga xam ne njaboot sëñ Bara gépp ak njaboot Cheikh Moustapha gépp ñoom lënkaloo nañ waaye dañoo lënkaloo waat njaboot njabootu Serigne kon daayira yi nekk ci biir réew mi ci daayira Serigne Touba ak daayira eh, sëñ Mourou Moustapha yi ak waa xibaar yeeg waa village yi ñëpp ñu lënkaloo nekk benn taxaw taxawaay boo xam nii kenn lekk lañuy jëmmal muy sunu maam Cheikh Mahmoud Moustapha ndax moom ci boppam ku ne xam nga ne li sëriñ Touba bëggoon lépp defal na ko. Cheikh Moustapha am gis-gis vision sens d'organisation fexe na ba jël baayam indi ko Touba ci gën kon réussir na point boobu bi ko ci tegoon moo ne ko la construction de la mosquée de Touba parce que euh, sëñ bi nee na woon sëñ Touba waxoon na ko. Euh, l'Éternel m'a donné pour l'éternité un édifice qui se dressera jusqu'au paradis waxoon Cheikh Moustapha bu ngeen ko tabaxut bu ngeen farluwut ba tabaxu ko dana am ñeneen yeneen être yu ko tabax yeneen être yi nag y en en un un adjectif qualificatif ay être mën na nekk être bu la ca toog humain wala ange wala leen dana daal yeneen être danañ ko tabax Cheikh Moustapha moom it ak volonté ak organisation fexe ba am autorisation ci tubaab bi tubaab bi ñu koy jox autorisation lañ ci jubluwoon jàppoon ne c'était impossible ñu yombalal ko autorisation waaye da xamoon ne mën na ko réaliser duñ ko ko jox waaye dañoo jàppoon toutes les conditions pour mu réunir ko ndax matériel pour nga transport train amul woon dara amul woon il va falloir mu gas taalibe yi gas ñu defal train bi pour mu mën a indi matériel Touba ak ña koy liggéey loolu lépp tubaab bi dafa jàppoon ne c'est impossible waaye sëñ bi fexe ba loolu lépp am na beneen bi ci def daf na ko sama njaboot gi na nga fexe ba dajal ma ko ku gis xam ne Cheikh Moustapha njabootu sëñ Touba gépp dajal nañ bañ nekk benn nekk seenu taali bi ndax seen bàyyi liggéey ko kon Cheikh Moustapha ku mat a wane la ku mat wax la ndax kat tey bu murid demee muridis bu demee ba àgg fii ndax nag sëñ Touba liggéey liggéey waaye lu ñuy organiser rek ci yoonu murid rek ci sëñ Mourou Moussa la départ nag am nañ jukkal tey jii sant Serigne Touba ci bis bi ñu koy defal waaye na am nañ devoir am nañ devoir ñu remercier Cheikh Moustapha wan ko wan ko nit ñi ndax xañ na ñu bari ñu ngir dudd ci année ay année soixante dix quatre vingt jëm jëm léegi xale yooyu mën nañoo bañ a comprendre Cheikh Moustapha mën nañoo bañ a xam course ci Cheikh Moustapha waaye nit ñi fi nekk te xam li mu liggéey ndax nag àdduna moom bala ngaa xam lan mooy njariñu lii fa mu départ précurseur yi war nañ leen xam kon nag monsieur le gouverneur loolu la ñu sëñ boo xam sëñ Ahmadou Makhtar ñu ñëw ñu dolli ko monsieur le préfet ñu ngi lay euh, euh, ngi lay nuyu ca ca sous préfet ñu ngi lay nuyu te di ñaan à trois jours ou à deux jours di di màggal bu mën a am une petite réunion avec euh, une réunion d'évaluation xool ba xam hmm, les décision prises kii kii bi yàlla def na matal nañ ko wala mataluñ ko lu ci matu tam ñu xool buñ ko mënee mottali ñu def ko bu ko mën nag ndax ñu ne tamit à l'impossible kon monsieur le loolu daal la bi àndoon ñëw fii pour wax ko bëgg tam yowet taxawaay boo ci amoon démb nga gën ko ci am ndax bis bi dañoo dañoo ñor te ñun bu ñu ñoroon sax dañu gën a ñor ndax sëñ mu tax a engagé woo màggalu ren bi dafa am benn cachet particulier moo coïncidé ak centenaire bi moo tax dañuy ñaan rek chef de service yëpp ñu intégré ko ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ war a am ci bës bi di seede rek mbooloo mi tamit ndax euh, ñi ngi bëgg a yàgg si jaaree chef de service yi nga xam ne ñoom ñooy impliqué wu ci cérémonie religieuse yu bari mën nañ seedeel quand même taxawaay bi nga xam ne am nañ ko. ci secteur yëpp la waaye li nga xam ne moom mooy liggéey bi dañu koy sas toujours muy kilifa yi nga xam ne ñooy autorité centrale ñoo ñuy demandé que ñuy indi yenn taxawaay ci événement religieux moo tax su jubsee rek comme ni ñu koy defee nii ñoo dajeeg yéen waaye wax nga ko incha allah dinañ ci intégré aspect boobu. te tamit dinañ ko yëgal kilifa yi ba tax na nag lépp loo xam ne wàllu secteur la bi xam ne am nañ ci yaakaar ne ah foofu ngeen ñuy xaar pour ñu dugal seen loxo donc foog naa partagé nañ ko te c'est de service yi ku nekk wax nga li nga xam ne mooy matuwaay yi nga moom lañ jël ci tënk rek ci ndaje bi ci wàllu wër-gi-yaram on a juróom-ñaari postes médicaux avancés la yi nga xam ne day am ñaari fan balaa màggal gi ak ñaari fan après ak ñeenti ambulance mais loolu également ñu doole ci tamit dotation en médicament ndax mooy gunge prise en charge pèlerin yi loolu foog naa direction régionale de la santé dina jël matuwaay yi pour mun koo taxawee incha ndaxte nag lim bi mën na màggal comme ni nga ko waxee lépp loo xam ne ñu ko doon def ci màggal yi mun naa am ren mu am yokkute kon loolu tamit foo naa ne su dee màggal gi dafa am innovation bu bees il faut que aussi service yi a def jéego bu toll noonu pour mën a fekk si euh, dayo dayo màggal bi su dee wàllu hygiène loolu euh, service d'hygiène dina ci lëkkaloo ak euh, mairie pour désinfecter yenn bërëb yi muy kër yi ak yenn pénc yi ku ne setit wax nettoiement donc ngeen jàpp le 19 juillet 2024 mu nekk journée phare bi nga xam ne Sonaget dina ci dugal loxo indi pelle mécanique ak ay camion ci wàllu assainissement donc ONAS engagé wu na pour indi juróomi camion bilan yi biiru ñeenti fan ak ay toilettes mobiles waaye yi nga xam ne moom lañ dimbalee ci secteur dafa am loo xam ne commune bi da ci am compétence te ñiy rafet lu baax teewaayu le maire suñu loxaat ka ak engagement yi nga xam ne jël na ko ci wàllu hygiène ci wàllu également assainissement ak wàllu cadre de vie maanaam jumtukaay yi nga xam ne mairie am na ko dina ko lëkkaloo ak li nga xam ne moom la état am ñu defandoo liggéey bi benn ndax lépp benn objectif la ñu fexe ba màggal gi euh, gën na jaar yoon donc état ci loolu lay liggéey mairie également loolu mooy objectif am donc comité d'organisation bi ngeen tegit yaakaar nañu ñoom ñëpp ñoo bokk benn kon kenn ku nekk la nga am da ko ci boole rek su ko defee liggéey bi gën moo tax ñi ñaan nag am na si loo xam ne taalibe yi dinañ ci dooleel service yooyu soo jëlee ci wàllu nettoiement donc dinañ soxla ay limu doomu aadama yu takku kon loolu également ñi ngi ñaan daayira yi ah sëñ bi ñu wax ak ñoom ak taalibe yi kenn ku nekk génn ci bés boobu ànd koog mairie bu Touba mosquée ànd koog Sonaged ñu boole nettoyer égal nettoiement donc ville Sainte de Touba su dee wàllu ndox loolu foog naa kam euh, ci camion citerne la ñuy daagaan au niveau de Diofior bâche yi dëgg la sëñ Ousmane wax na ko dina am loo xam ne dina jàppal ni waaye du tere tamit dañuy daagaan rek su bee ñëwee baax na su ñëwul maintenant ñu soog jël yi nga xam ne moom la comité d'organisation bi euh, am ndax tamit du doy donc wàllu ndox Touba dëgg la am na ci nag ay jéego am fan yi ndax situation bi gënoon a tàmbi mais fi mu ne nii am nañ si yaakaar ak forage bees yi ñu jafe-jafe yi mën na gën a wàññeeku waaye nag lu muy bu gën moo ñu accompagne li nga xam ne moo fi nekk kon yaakaar naa ne bâche à eau du doy camion citerne également doy ndax day gën a tax rek euh, ndox mi bañ a nekk jafe-jafe ci màggalu Daaru Xudoos wàllu énergie Senelec yàgg na di ci liggéey mooy surtout rek ñu fexe ba courant bi bañ a coupé et ñaanoon ko su amee pour relais bi nga xam moom la ñu war a indi mun na jël le waaye wàllu courant dafa laaj saytu moo tax ngeen def ci équipe de mbay loolu également Sénélec engagé ba dina ko wut ay techniciens yoo xam ne ñooy nekk à disposition du comité de valorisation euh, yeneen secteurs yëpp nag mën nañ ko tënk ci ñaar benn bi mooy approvisionnement ay contrôle beneen bi wàllu kaaraange ci wàllu approvisionnement et contrôle mooy ñu fexe ba marché bi ah produit yi mun a doy waaye tamit mu tombeek mu am ay njëg yu bees ñu fexe ba la ñuy jaay ci marché bi njëg loolu dëppook li nga xam ne moom la yoon bëgg loolu foog naa dinañ ci liggéey te incha allah ajjuma am nañ ci ndaje li ci des rek mooy demander service yi nga xam ne ñoo war a saytu ñu def sur le terrain saytu également marché boobu. wàllu sécurité loolu c'est le cœur des métiers donc loolu mooy seen taxawaay muy fexe ba fépp foo xam ne ay mbooloo ñu fay dajee ñu mën a nekk ci jàmm sàmm leen mais également sàmm seen alal muy gendarmerie ci wàllu dem beeg dikk bi sur les autorités mais également sapeur pompier donc loolu également euh, dina jël seen matuwaay ba lépp loo xam ne taxawaay ci màggal bi incha allah ñoom ñu def ko mais sapeur pompier également ñu ci bàyyi xel ndax le 26 wala 27 juillet dina fekk ki nekk ci wàllu nawet ñu intégré ci également évacuation des eaux pluviales balaa mu leen bett maanaam muy sapeur pompier CONAS dina jël également disposition pour mën a comme au moins libéré yenn yoon yi nga xam ne ñàkku dina am ay taataa peut-être pour soo ko defee dem dem dina gën a gën a donc ñu ngi ci tàmbali ci liggéey mais nañ ko ci intégré te boole koog également parce que un mois lay doon avant le grand magal de Touba donc teel a commencé opération yooyu moo mooy liggéey li ci des rek mooy li nga xam ne tënk nañ ko fi préfet bu Mbàkke dina ko ànd ak comité d'organisation bi di ko saytu donc fii wax rek sëñ Cheikh Aziz Mbàkke foofu la ñuy daanale ñu ñaanal tamit réew mi suñu borom dem si jàmm mais ñaata ñi nga xam ne aussi ñoo ko ñoo ko jiite donc muy président de la république Bassirou Diomaye Faye premier ministre monsieur Ousmane Sonko ak membre gouvernement bu Sénégal yëpp ñu ñaanal leen ndax ñoo nekk ci bopp réew ba suñu borom defal leen ci mu nekk njëriñu askan bi yëpp ñaanal également suñu service service yi nga xam ne ñooy bokk ñoom liggéey bi te yàgg di ko def suñu borom may leen kattan boo xam ne